yéen waa Grand Dakar yéen waa Dakar yéen waa Sénégal mais également yéen waa bitim réew abonné nañ ci ActuBuzz ndax loolu bokk na ci lu jàppandi communication ci biir Sénégal ActuBuzz daal moo koy yor. xayrul xalqi lil xadimi jazaauhu maa jazaal xadimi wa jaa xayrul xalqi lil xadimi جزاؤه مع جزاء الخديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيه ذي المزايا أحمدا أزكى صلاة بسلام سرمدا على السفيه ذي المزايا أحمدا najaabatul muxtaari sallallahu alayhi bil aali wa mawlaahu comme cher a baax a baax yéen seen bi nga xamante ni muy fajum wolof tey nag xamante ni macha allah yaakaar naa doot ñu leen ko présenté muy Serigne Assane nga xamante ni moo dëgg fee ci commune ko Guédiawaye dafa tuxu si nag bu bees fii mi ngi fi nga xamante ni muy ci foire bi ci gendarmerie foire bi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 maa ngi koy di ko siyaar di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te fa tabarakallahu te ànd ak wér di ñaanal sëñ Muntaxa Bachiru yàlla yàggal ko fi ba naar yi mu am yéen liggéeyal maamam sëñ Touba Cheikhul Khadim yàlla kàttanal ko ba mu mën koo def kenn bañ ko ko àggalil di ñaanal xalif général de Baye Fall sëñ Abo euh, xalif général euh, bu bu xalif bu bu sëñ Fallou maa ngi koy ñaanal sëñ Abo mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax vraiment bokk ci njabootu maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima ba pare bokk ci njaboot sëñ Fallou ndax njaboot sëñ Fallou moo ma seexal kon du ma fàtte di di nuyu di siyaar sëñ aboo di nuyu Baye Fall yëpp nag fa tabarakallaa ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla tàmbali émission bi ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko ci alhamdulilah kon boog bismillah alhamdulilah yow Fane la sëñ sëñ Assane Fall Fall Ndiaga Yaram ñu ngi lay ziar bu baax euh, sëñ Assane Fall la moo tax sëñ Assane Fall jafe gis jamono ju ñu toll nii. waaw sant rek ak nekk ci dëgg rek fa tabarakallaahu ndax liggéey bi ñuy liggéey ñi jaamu yàlla la buñ ne jaamu yàlla mooy koo xamante ni li ngay yëngu yaa ngi ci jaamu yàlla waaye nekkul di julli di woor mooy jaamu yàlla kese jaamu yàlla yu gën a kawe ci jaamu yàlla yi mu ngi nekk ci dimbali doomu aadama yi nekk ci yittey doomu adama yi ci soxlaay doomu adama yi fa tabarakallaahu loolu nag moom ma may lépp lu ma am yaakaar naa fa tabarakallahu bu ma nekkoon ci liggéey bii may liggéey di trian di tappale kon tey lu ma ci am yëpp duma ko ci am maa ngi ciy sant yàlla ndax 2007 ba léegi ku nekk ci wàllu ñaan mosuñ laa wax fay ma sama xaalis mosuñ laa wax delloo ma sama xaalis mosuñ laa wax li ma ñaan gisuma ko mosuñ laa porte plainte mosoo dem tribunal yaa ngi ci dëgg moo tax boo nekkee ci dëgg moom saa su nekk rek sa liggéey day dox tey jii même bu ma génnoon àddina sax fa tabarakallahu yàlla na yéex sama liggéey day gën a jëm kanam ndax li ma fi bàyyi dëgg la kon nekk bu jafee gis boobu ngay wax nekk ci dëgg rek ndax boo nekkee ci dëgg saa su nekk rek sa liggéey day waaye ñi nga xam ne fa tabarakallahu dañ dañuy nekk di dóor ak tappaleeg nit ñi lu dëgg ak tey anuñu tey fay nañu comme comme comme comme sondel nekk ci dëgg rek moo solo ndax boo nekkee ci dëgg yàlla muy ñëw ànd ak yow ci dëgg jooju ba koo ñaanal aajo faju am na solo sëñ Assane Fall mi fi nga xamante nii muy ci euh, gendarmerie bi si ginnaaw gendarmerie foire bi fa la nekk moo ak euh, kër ak gendarmerie daanaka ñoo taxaloo sëñ Assane Fall ñu bëri dañoo yoo xam doon ñu defaat émission man ak yow parce njëkkoon nañu def ko laaj kañ ngeen defaat ak sëñ Assane Fall tey nag ñu ngi fii mais liñ ma li ma gën a laaj mooy wàllum kaaraange naka nga ciy dimbale jaamu yàlla yi waaw xam nga fa tabarakallaahu addina boo amul kaaraange loo am da koy ñàkk boo amul kaaraange boo amee ay milliards danga koy ñàkk soo amul kaaraange boo amee ay millions da koy ñàkk soo amul kaaraange oto bu rafet wala kër gu rafet gi ngay dawal xanaa xamoo ne boo amul soxna si ngay am sax nga koy ñàkk ndax ñoo xam ne dañ lay éñaanee soxna si nga am éñaanee la oto bu rafet bi ngay dawal éñaanee la kër gu rafet gi nga am loolu lépp nag bu la ko sa jom mayee kaaraange nag moo la koy tax loolu sax ñaata milliardaire ñaata nit nga dégg ñu doon ay milliardaire tey jii boo leen gisee yéene leen sarax ñaata doomu aadama ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo amoon àdduna lu si biiram tey ñu sànni leen ay affaire yoo xam ne def leen ay liggéey yoo xam ne ñi ngi waagante ay hôpital dama ko ñëw du xaaj jeex ñaata nit ñoo amoon alal ju dul jeex tey boo leen gisee yéene leen sarax mais ñàkk kaaraange mooy waral loolu dimbale nit da aar sa bopp ba sëñ bi ku la kott mu dellu ci moom ku la liggéey génn àddina fa tabarakallaahu kon kaaraange moom <laughs> boo boo doon njiitu réew te amoo kaaraange sax sa dara du dox kon luy luy sàkku ci àddina na ci kaaraange jiitu dëgg la ay millions neex na ay milliards neex na mais su àndul a kaaraange sëñ bi da koy ñàkk am na ñoo xam ne boo amee boo maasee woo ak ñoom wala nga molomante ak ñoom nga am lu ñu amul dañ lay yàq am na ñoo xam ne bu ñu la mënta yàq sax dañuy dem di la boole di la piéger di la def ay di am na ñoo xam ne bu ñu liggéeyee liggéey ba mënuñu laa liggéey dañ lay fexeel ñaata doomu aadama ñoo nekk ci kaso bi ci ay pexe xaxamoo nit a ngi naan sàngara te fekk dañ ko koo liggéey mu koy def est xam nga ne nit mi ngi dem di mooy yàlla di sàcc dañ ko liggéey mu koy def est-ce que xam nga loolu est-ce xam nga nit a ngi nekk si place di xabtalu di saaga di di di di ba heure bu duggee si place bi rek am jafe-jafe bopp wala heure bu xëyee rek am ay yàqu-yàqu dañ koo liggéey kon kaaraange moom moo jiitu si luy nit di am. Euh, sëñ Assane kooku noo koy dimbalee. ndax fa tabarakallaahu alxuraan lépp njëriñ la man nag gàllaaj bii ma ci yor. Euh, fa tabarakallahu gàllaaj gu bon la ndax li tax mën gàllaaj gu la mooy ku liggéey génn àddina kii boo ko takkee nga dajeeg boroomu garaat fit bi rës lay def boo ko takkee doo dugg kaso waaw boo ko takkee doo dugg kaso boo ko takkee boo demee guerre billahi wallahi taala boo demee guerre da ngay ñibbisiwaat. kon bi am na solo de. kii boo ko takkee boo génnee da ngay ñëwaat donte ay nit a ngi armé wu taxaw sa bunt kër di la di la di di di la xaar da ngay ñëwaat kii boo ko takkee ku la jam paaka du dugg lu leer laa wax kii ndax dofoo bay jox nit gàllaaj di nga wax loo xam ne xaa xamoo nit ñu bëri rey nañ leen fekk sëñ si ñoo leen wax lii boo ko takkee nii ñi takk ko loolu amul waaye mën sëñ Assane Fall képp ku ma jox gàllaay bu la neexee essayé ko kii boo ko takkee paaka du la dugg kii boo ko takkee homme de tenue du la jàpp waaye ci kaw ngay def lu neex yàlla waaye waxuma ngay jaay lu bon di jaay lu ñuy tere nga takk kii déedéet moo tax kii du ko ne laa koy jox du ma ko jox wuyu du ko jox saay-saay kii desitu càngaay néew lañ ko liggéeyee morse bi nga xam ne mooy wër gàllaaj bi desitu càngaay néew la mi ngi ànd ak ay sunguf yoo xam ne mooy garabu guy gu sax ci armel lañu jël liggéey koog li muy liggéey mu ànd ak ndomba gi ci alxuraan aaya yi nga xam ne dañuy wax ci wàllu kaaraange yëpp ñu ngi fi kii ndeysaan toog naa fi benn waay ñëw fii ba si yàgg rek naan ma ne ko sëñ bi man damaa aaru jógal nga dem sa yoon dugal dem bala ma laa yàq. du moom. <laughs> moo tax sëriñ si bëri yàqu nañu sëriñ si bëri lekk nañ leen sëriñ si bëri yàq nañ leen nit da aaru. galaaj bi buñ la ko joxee nit li si la war a seetal la gisu ko rek. kooku manu dara ndax lii du caaxaan soo ko takkee fit yi ngay am dafay ëpp Baay Faal gàllaaj ji mu toog ak man di karkari di mu lennam kii dafa xam gàllaaj gi boo ko takkee toog ak nit ku xam dara sax da nga koy xàmmee euh, maanaam euh, li ñuy wax nii lii dañ fi ñëw spécial yi ma ko jox nee ma bu neexee laaj ci juróomi million te koo ko jox mu mu mu sant la ñemoo maa wax li ci nekk lépp ndax yàqkat yi daa bëri waaye képp ku ko takk ku la liggéey génn àddina kii du caaxaan moo tax kaaraange rek <laughs> am na solo am na solo sëñ Assane Fall mi ngi fi nga xamante ni mi ngi ci mi ngi ci géejawaay sëy bëri tas yi xam moo da ngay nekk si kër di wujje rafet ñi yàq ñi di la def ay affaire da ngay nekk si kër jubóog sa jëkkër ñi def la loo xam ne yàq si jëkkër doo leen nekk si jàmm gis naa loolu gis naa ñoo xam ne oto bu ñu am oto bi jog si ay paan ak ay jafe-jafe dañoo yàq oto bi xaaxa moo danañ yàq kër nga dëkk ci sax sëñ bi loo am muse mu yàqu danañ yàq oto jaay la ko loo am yépp oto bi lekk ko xaaxa moo kii boo ko takkee nga nekk ak jigéen ju am gaaf dara la mënul ci yow buñ ne kii boo ko takk ku ko takk dee yow boo takkee gàllaaj gi boo ndaw si boo ko takkee du la rey. am na solo euh, li dinañ dinañ ñëw spécial boo xamante nañ wax si wàllum kaaraange ah, dinañ ko def incha allah rabbi nga xam fa lañ fa lañ ko ñu bëri ñu bëri xamee mais mi ngi fi nga xamante ni muy këram gu wees gi si gendarmerie ginnaaw foire ginnaaw gendarmerie foire bi fa nekk numéro téléphone ñu wax tuuti ci wàllu móor móor ndax am na am na loo ci jotoon wax ñu laajaat ñu lu mel noonu lépp lu ma def laaj rek dañ ma moo tax ma la koy laajaat wàllu moodu moodu noo leen di aaree ba ñoom jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund fële mën a mën a jóg si ñoom waaw fa tabarakallaahu moodu moodu yi ñaata moodu moodu lañ fi rey Amérique Italie France te mujjut fenn ñàkk kaaraange rek ni da ngay sa bopp képp koo xam ne ndomba gi mënoo ko attan mënoo ko yoon danañ la booleeg lu muy àndal nga sangoo ko takk bi moom dafa danger waaye bu fekkee da nga bëgg lu yàmm mbaay rek nga xam ne ku la liggéey du dee wala waaye day dellu ci moom dañ lay bindal loo sango képp ku la liggéey mu dellu ci moom waaye ndomb gi moom boo ko takkee ku la liggéey génn àddina moom fos fa tabarakallahu am na solo kon yaakaar naa suñu mbokk Modou Modou ñoo ko déggandoo ñàkk kaaraangi da nga gi xam da ngay tukki commencé ubbeeku am say mbokk ku def loo xam ne sëñ bi dootoo amati dara loolu loo am mu dem ñaata Modou Modou ñoo jékki-jékki am bërét yor ay million ñëw moo tax moodu Modou ku ci ñibbi si Sénégal na nga waaj Sénégal ay nit yu soxor ñoo fi ne fa tabarakallahu da nga ñëw dawal oto bu rafet ñu ne dootu ko indeeti da nga ñëw di may nit ki xaalis sax mu ne kii daf ñuy jaay affaire dootuñu mayeeti da ñëw tabax kër sax ñu naan ah kii day jaay affaire dootu ko amati ñaata moodu moodu ñëw amoon alal ñëw Sénégal dell moo tuñu amati dara ñu ngi may seetaan du benn du ñaar du ñett du ñeent bëri na moodu moodu yu ñëw dell dellu amatuñu dara boo waxee ñu ne commencement bi neexoon na lool waaye fu mu ne dafa dëgër fekk dañ leen a def ay affaire mënatuñu am dara ñàkk kaaraange rek fa tabarakallahu am na solo si Assane Fall am na solo li nga wax yaakaar naa si mbokk Mor Mbaye ñoo ko déggandoo. Assane Fall naka ngay boolee nekk géejawaay nekk fii am ñu ko am nañu ko xamul ba léegi. waaw fa tabarakallahu sant yàlla rek lépp sant la lépp sant la ndax géejawaay dama fay recevoir waaye fii ba mu fiy recevoir fa ndax kilifa yi ñëw ci man ministre yi ñëw ci man ak fa tabarakallahu kilifa yi daal <laughs> ndax fa tabarakallahu am na ñoo xam ne mënuñu ràng am na ñoo xam ne boo leen yi ñaanal doo fii nga fu mel nii nga leen mën a ñaanale ndax rawaan yi dañuy bëgg bërëb yi calme ndax fii ba nga fi ñëwee ba léegi déggoo fi benn bruit rawaan dafa bëgg lu calme képp koo xam ne ñaanal nañu la fii rek sa aajo dana faju ci kàttun yàlla ak ak mbaaxam waaye ñu wax si wàllum alal naka la nit ki mën a def ndax am na benn baat boo xamante ni maa ngi koy dégg nga wax si benn émission naka naka nga ci naka nga ciy defee ba am ci alal secret boobu. waaw waaw allah secret alal bi allahu waahidun sama benn maam moom ma ko jox te sama maam boobu ku ko jox mu xaddamu ji maalig la duñu ko leena ndax dafa doy waar waaye képp koo xam ne jox nañ la ko nga di ko liggéey ci turam. bés bu set bu dee bu milliard nga bëgg par bés sax di ko am bu dee million nga bëgg par bés di nga ko am waaye dañ la koy jox jox la secret bi nga di ko liggéey suba ak ngoon man de ba mu xamee ba léegi nammatuma dara. xanaa xanaa boobu dañu ko dox ñu yóbbaale ko. saoudite ma ne ko lan laay def Arabie Saoudite kaay ma yóbbu la Amérique ma ne ko lan laay def Amérique li ma bëgg maa ngi koy am sama néeg bii te génn ma maa ngi sant yàlla macha allah li nit di am maa ngi koy am macha allah damay ñaan yàlla daal fan wu gudd waaye teraanga ak xéewal moom maa ngi koy sant borom bu baax. alhamdulilah sëñ Assane Fall mooy jaam ñi ñëw ci man seen aaju faju man xooluma lii nit ñi am mais seen wér moo ma moo ma saxal ndax na solo dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo représenté sama seen borom ci kaw suuf ci jaami yàlla yi dama bokk ci ñu war a aar nit ñi ci musiba ci defkatu yu ñaawteef yi dama bokk ci ñu war a ubbi ñi nga xam ne dañoo ñàkk te seen loxo jotul seen gannaaw dama bokk ci ñu war a dimbali doomu aadama yi ndax damaa jaar ci ñàkk jaar ci tumuranke moo tax li ma suñu borom jagleel muy xam-xam ma dimbali ci jaam yi te yàlla rek tax fa tabarakallah am na solo macha allah sëñ Assane Fall ngi fi nga xamante ne nii. ak malet ñëw boo tijjee malet bi da nga yéemu ci yàlla te woowoo ko kan moo ko indi ndax nit ñëw na ci yow nga ñaanal ko te yàlla tax fayoo ko woo ko nga toog ay fan yàlla yebal nit ku ñëw ak maletam. wax la aajo boo xam ne da ngay toog fi ci sidaare bi boo commencé sax bala ngaa pare mu wóor ne la aajo bi faju na yàlla moo ko yebal moo tax ku def te yàlla tax yàlla moo lay fayal boppam fa tabarakallaahu am na solo sëriñ Assane Fall am na loo xamante ni mu tam ñun tamit euh, ñu ñu ngi la koy wax encore une fois euh, gis nañ li nga xamante ni yaa ngi koy def ci ci dimbal tamit doomu aadama ñi nga xam ne dañoo néew doole wax dëgg yàlla euh, sëriñ Assane wax ci wàllum faiblesse sexuelle laajaat nañ ma ko bi mooy ñaari yoon tamit ma la ko laaj ndax laajaat nañ ma ko moo tax dimbali si jaamu yàlla ci Assane Fall sonal nañu de. waaw xam nga ñu ci bëri tëdd ak jabaru jàmbur moo tax ñu am faiblesse sexuelle ñu bëri sëy ak jabaru jàmbur moo koy andi benn soxna daf ma woo fan yee ne ma sëñ bi dama am feebaru sëy ma ne ko feebaru sëy jàmm mu ma waaw ma ne ko lan la mu ne ma infection mais nit ki naka lay amee infection ak jëkkëram infection feebaru sëy mooy koo xam ne da ngay sëy ak kii sëy ak kii sëy ak kii moo tax gars yi du ñu def wóorul bala ngaa takk jigéen danga nga koy seet ma ne ko soxna si yow de lenn mun a amoo jëkkër mu ne ma amoo jëkkër ma ne ko ñàkk am jëkkër boobu moo nga moo la indi sa infection boobu parce que boo sëyee kii sëyee kee sëyee kee ndox mu bon ndox moomu day mujj doon lu bon indi infection ku war a takk soxna demal nga takki soxna ku war a am jëkkër demal nga uti jëkkër waaye foo moom amul mucc day joxe ay feebar rek ay ba rek góor ñu ci bëri nag dafa am xaaxamoo am na ci jigi góor ñoo xam ne waruñ mooy yàlla suñ mooyee yàlla rek dañuy faible parce que yàlla moo bind seen jénn ay ay leer xaaxamoo nit koo gis ay leer gis nga projecteur bi ni muy leeree nit koo gis lumière yooyu ñu ngi ci moom mooy tax muy dund moo tax mu mu mu muy dox moo tax muy nelaw di yeewu mooy tax muy tàllal ay baaraamam moo tax muy xalaat leer googu nag suñ borom moo koy def ci jëmmi doomu adama mais leer googu suñ borom bu ko defee ci yow nga di ko sëyee ak ñi nga xam ne takkoo leen leer googu nag day mujj dem ba nit ki lëndam loo uti doo ko am nga ne dem naa ci sëñ bu ne gisuma dara nga naan sangoo naa sunguf bu ne gisuma dara ay alxuraan bu ne jox nañ ma gisuma dara fekk leer gu nekkoon ci yow moom nga yàq xam nga nooy mujjee voilà kaana ndax leer mooy tax nit fu mu dem ñu bëgg ko leer mooy tax nit ki bunt bu mu fëgg mu ubbeeku leer mooy tax nit ku lu mu jéem ci yow mu këpp ci moom leer mooy tax loo ñaan sa borom mu may la ko te leer day tax nit ubbeeku leer day tax nit ubbeeku leer day tax nit gudd fan kon boo jëlee sa leer googu yëpp tasaare ko ci jigéen ñoo xam ne takkoo leen mais sëñ bi da ngay mujj kasaw yàlla si yàlla dafa yàlla dafay mel ne damaa mës a gént benn gént gént gi dama gént benn waay bu génn àddina ñun ñu jël ko di ko rob yi waaye bañ koy rob ñun ñu koy rob yi dañoo fatt suñu bàkkan ba mënuñoo noy ñëpp daw wàcc ci gént gi de li ma lay wax du ay caaxaan ñu jël ko sànni ko ci mbalit mi ñi ñi leen waaw lii lan la am ko ne kii de da doon mooy yàlla mooy yàlla gi mu doon mooy yàlla moo tax muy midd di xeñ nii kii suuf sax bëgg ko ndeke booy mooy yàlla sa yaram tilim ndeke buñ la dugalee suuf sax suuf dalay lay gedd du la bëgg keroog laa xam ne ndekete mooy yàlla moom suwaay moo gën a dangereux ci luy doomu aadama yi def man ngaa takk ñeenti soxna boo demee ba kenn neexatu la nga effacé kenn dugal keneen fa tabarakallaahu bu la neexee sax ñaan kii day takk di wàcci mais saa yoo demee ba ñeent yi doy la rek bu la neexee effacer ñaar dugal ñaar waaw mais moo gën mooy yàlla moo gën mooy yàlla ndax ñu ñu gént di yóbbu néew xet gi kenn mënul nooy ñëpp daw ñu mujj jël oto bi dem ba ci mbalit mi wàcce ko fa ñi naan lii lan la am ko nañu kii da doon may yàlla mu waral mu mu xeñ ni xet gu bon gi mu mel nii ndekete nit xanaa xamoo léeg-léeg nit génn àddina mu mel ne dañ ko pompe parfois léeg-léeg nit génn àddina suwaay mi ngi noonu daal moo tax leer moom kenn du ko yàq boo doon sëyeeg sa jabar nag day mel ne douze volts bu ah bu buñ jox douze volts douze volts buñ dolli douze volts douze volts buñ dolli douze volts waaye douze volts moom bu duggee ci lëndëm rek day mujj batterie bi vide. day fay am na solo mi ko dem chargeur bu ne sëriñ bu ne sëriñ ñi ñooy chargeur yi sëriñ bu ne nga dem ne ko sama batterie dafa vide mu chargé ba sonn gisul dara fekk ne yow yow yaay yàq eh, eh, fu bi waroon a dem ak li nga xam ne moo waroon batterie bu baax loolu nga yàqu ko nga naan impuissance sexuelle fekk yow yaa dem ci xanaa xamoo am na jigéen ñoo xam ne dañuy xam dara ñuy dem ci jigéen ñi taxawaalu moo gën a mais am na ci koo xam ne dafa dem ci jigéen ñoo xam ne jinne la gis nitu mbedd rek ànd ak moom ba mu ko demee tëdd nekk ci këram di simmeeku rek yére yi jeex sa waay yére bu mu simmi rek beneen nekk ci koom yére bu mu simmi rek beneen des c'est la jommee fu ne lañ ko yóbbu pour mu tane moo tax mooy yàlla baaxul taxawaal am na jigéen ñoo xam ne dañuy xam dara da gis benn waaye na ma sëñ bi man de sama ndaw si moo laal sama awra rek doonatuma góor dañuy xam dara ay nit guddi la doon kon sàmm sa leer rek fa tabarakallaahu sàmm sa leer am na solo kon tamit yàlla nañu tamit yàlla musal si yooyu noonu jabar di sëy ak moom fukki yoon ci bënn guddi doo am problème mu waaye boo demee ba nga dem fa dem gaaw daanu sax moo fay fekk wala feebar nga jëlee fa feebar fa tabarakallaahu waaye sa jabar man ngaa ànd ak moom fukk yoon ci benn guddi fa tabarakallaahu doo am jafe-jafe am na solo sëñ am na solo am na solo sëñ Assane Fall wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo waxtaan bi am na solo gars sàmmatuñu seen leer yi leer dañ koy sàmm boo gisee mag ñu guddoon fan di dund ay téeméeri ak dañ doon sàmm seen leer yi ndax dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo xam nitu leer yi dañuy bëgg a jaxasoo ak nitu leer yi te xanaa xamoo non doy na waar waaye leer moom lu mat a sàmm la fa leer la si Assane Fall mi ngi fi nga xamante ni muy si ginnaaw gendarmerie foire bi numéro 78 438 74 55 expresso bi 70 la 741 75 36 waaye si Assane Fall dafa am loo xam ne wax dëgg yàlla man du ma ci werante ak yow wàllum ndoxum siti secret secret boobu nga am ci wàllum ndoxum siti bu koo ko jox ndax man du benn du ñaar mu indi nit si yow boo koy dimbal ci loolu secret si Assane Fall waa xam ci rajo ak télé yaakaar naa bu amul woon résultat doo ko def ndax koo faj wéeroo dafa war a ñëw nangu xaalisam man sañ Assane Fall képp koo xam ne faj naa la wéeroo boo amee fulla kaay nangu sa xaalis loolu ko xamul dara doo ko wax nañuy bàyyi tappale te dem gëstu ji nañuy bàyyi tappale boo demee Chine ay xale yi ndaw mooy moins de dix ans ñooy defar ay comprimés ñooy defar ay garab ñooy defar ay ay ay seen seen caméra yi sax ay xale yi am 10 ans ñoo koy defar kon lan moo tax ñun ay muskalla fi toll ne ñun dem ba am fanweeri at ak ñu teg wala ñeent fukki at gëstuwuñu xam-xam di tappale mais tappale moom ay fan la rek yow ba nga commencé xam ba léegi yaa ngi may xam ci teraanga ak sutura li ma am dama ko doyloo nit da ngay doylu ah waaye sénégalais ñoom ma wiirandoo moo leen yàq xamuñ na ñaan mbiru yàlla la yàlla moo lay jagleen ne yow gendarme ngay doon avocat ngay doon sëriñ ngay doon mënoo ci dara man su fekkoon ne seexal gi ñu ma seexal muy prouver ne que man li ma nekk dëgg la ndax su ma nekkul woon ci dëgg kon seex jilil Abdou fataa fàllilu surtout sëñ fàllu du ma gis ba seexal ma jox ma ba dara man naan ko mu ne ma koo ñaanal aajoom faju am na solo alhamdulilah am na solo am na solo ne si dëgg rek am solo ñu koy ziyaar bu baax moom sëñ jilil Abdou Fatah Mbacke euh, Mbacke Balla ñu koy ziyaar bu baax alhamdulilah gis nañ sa diggante ak sëñ jilil Abdou Fatah Mbacke te ñu ngi suñu njeextalu émission sëñ bi euh, lan ngay tàggatoo. waaw di di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd wér ndax ba ma seexalee ba léegi yëg naa leeri dolliku yëg naa loo xam ne ci sama bopp masuma koo yëg ci sama bopp ndekete ceex buñ la seexalee ndekete am na luñ la mooñaaleel loo xam ne doo ko gis muy nekk yow loolu moo gën milliard moo gën million muy lan muy muy muy muy nekk tegu ci dina siraatal mustaqim ndax dañu la yaakaar nga war di ràmm ëllëg kon am na noo war a mel ak noo war a bu ñu tuddoo di nelaw sax sëñ Fallou maam Cheikh Ibrahima Fall fekk ñu suñ kaw lal bi teral boo ne ma maam Cheikh ah? ne ko jàkk dara du hasard nee ma jàkk rek nga ne ko jàkk nga xam moo ne ci sama kanam moo ne ci sama gannaaw moo ne ci sama kaw moo ne ci sama suuf moo ne ci sama jëmm moo ne ci sama xol moo ci sama xel moo ne ci sama lépp moo tax sañu maa def dara ndax fu ma teg sama tànk mu teg fa tànkam lu moom léegi-léegi am na benn malaat bu fi mas a ñëw ma xool ko gisuma ci moom takkandeer ma xam ne kii moom jeex na maa ngi lay wax lu garaaw ñu andil ma ko soxna si na ma kii moom gaawul mu génn kii moom day wàcc liggéey fii moom kii moom lu ñu rek mu gaaw génn ma ne naa gaaw balaa waa ji wàcc liggéey sama biir kër gi gaaw bind benn aaya alxuraan ñaata laa lay jox fekk ndaw si xam naa ko ma ne ko loo ma jox rek baax na mu ne ma sëñ bi kii fu ne lañ dem ma ne ko bu soobee yàlla dana wér comme maa ngi koy dàq bëgg mu bañ a wàcc liggéey sama kër gi ma bind aay bi rek jox ko ko na ko na jox leen ko ko ñu génn na ma sëñ bi mën naa toog fii noppali ma ne leen hé dimbali leen ma rek ndax li ma koy jox moom il faut mu àgg si këram mën koo jëfandikoo ndax bu ko kiyee fii sax ngir rek dàq leen pour ñu dem ndax ragal mu wàcc liggéey ci biir kër gi barki sëñ Touba mu dem ma jàkkaarloog photo maam Cheikh Ibrahima bii faal kii de maa ngi dogg ci sa barke ak ci sa daraja bu ko dara jot kii daal wéram dis naa la ko dogu naa ci sa daraja ak ci sa barke jëmm ji wér ndax nee naa leen dina wér te bëgg mu ñu ñëwaat fii ne ma wàcc na xoolal sëñ bi ba ma dalee def ñaan ci àddina ak léegi koroog laa ma sa yéemu mi ngi ñëw sama kër tisbaar tàkkusaan ñi woo ma ne ma sa waajaa ngi noonu di doxi fa tabarakallah ah sëñ Assane Fall kenn du jeexal na ma jox ko li ma koy na ko si darajee Sëñ mu dem ma ñëw jàkkaarloog Sëñ wax ak moom mais tisbaar tàkkusaan ñi woo ma ne ma sëñ bi sa waajaa ngi noonu tane na bay doxi dakki sëñ Touba ndaw si bokkoo daf yoonu tool ndax këram ak hôpital hôpital bu Pikine ñoo jàkkaarloo ku bëgg a ci liggéey rek mu yéen bëgg laa yeenu indi ma ne ko soxna si dimbale ma rek nag dimbale ma rek nag dimbale ma fa tabarakallahu waaye mooy kenn du maam Cheikh Ibrahima Fall. am na solo Seydou Fall yan ñaan nga ñuy jox ñu ñu tàggoog moom. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp fa tabarakallahu di di leen ñaanal ngeen ngeen ngeen ngeen doon ay milliardaire ndax actubeuse doon ba raw su télé yëpp internet yëpp yàlla na ci actubeuse dem ba doon premier yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def maam Cheikh Ibrahima Fall fa tabarakallahu waaw di leen di leen jaajëfal bu baax fa tabarakallahu di wax rek bañ a yàkkamti rek <laughs> bañ a yàkkamti rek ndax yàkkamti moo waral ko def wala gars yi di ko def bul yàkkamti léppay ñëw bu soobee yàlla sa bakkan bii sa jëb bii lépp li nga war a am ci àddina suñu boom jox na la ko asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> abonné nañ ci ActuBuzz ndax loolu bokk na ci luy jàppale communication ci biir Sénégal ActuBuzz daal moo ko yor